jërëjëf mbokk yi ñu topp ci IFSN 221 ak TV di leen ñaan ngeen di abonné bu leen di fàtte like yi ka partage vidéo yi ate ba jëm ca diggante kii di a Sonko ak ki ak kii di Ndeye Khady Ndiaye nag ba mujj nañ ko daal di ay fixé ci réewum Sénégal nee yëgal nañ ñii di avocat Ousmane Sonko bis bi nga xam ne bii ca lañ war a tase fee ca tribunal mais avant loolu dañ leen di wax soxla seet sa wàllum yar wala nga amee émorite wala nga amee ndoxum siti wala nga niiw kattan sa wàllum sëy wala nga soxla jaar bu am secret bi da ngay woo Serigne Cheikh Tawfekh ci 1942 le 9 février 2022 2023 ca la atte bi war a am ci diggante kii di Ousmane sonk ak ki nga xam ne bii mooy Adja Rabi Sarr ak ki nga xam ne bii mooy Ndeye Khady Ndiaye kii di Ousmane Sonko nag ñu ngi koy toppee li nga xam ne bii mooy wàllum viol boo xam ne bii kii di Adja Rabi Sarr da ko ko jiiñ ak li nga xam ne bii mooy menace de kii di Ndeye Khady Ndiaye nag mu ñu ngi koy toppee lii di wane ay nataal yoo xam ne bii dafa dëppoowul ak sunu aada ak sunu culture fii ci réew Sénégal le 9 euh, euh, février nag 2023 bi ci la nara xam ana kii di Adji ak ki nga xam ne bi mooy Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye ana lan mooy seen ëllëg seen live bu CV ak FSN 221 dina leen toppal mbir moomu bu boobaa lu ci gën a leer rek dina leen ko baaxee